Baye Fall boobu nga xam ne ci waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp fa la bokk kenn moom yàlla ko yàlla jàmmal ndaysaan sixième combat de la mu ngi noonu arbitre bi di waaj a sifflé di leen wax li làmb nangu ak li làmb bañ bu leen laalante tant que sifflé waaye bu leen tàqalikoo tant que sifflé wu ma ku dóor sa morom mu wadd jël la ku def kat appi jël la ndeysaan mu ngi noonu laaj na ay jugeam ndax pare ngeen nee ko waaw laaj na ñaari xale yi ndax pare ngeen nee ko waaw arbitre na mbokk yi samedi 30 décembre 2023 ci bu Pikine boki. yi ki nga xam ne moom mooy Paquetage moom la ñu jàkkaar 500 briques moom moo ñu wan ginnaaw sixième combat de la soirée la ñu ngi noonu ñaari yi ci digg géew bi mu kau ne xaw nañoo neexoo ki nga xam ne 500 xaw ñom ñaar ñi ngi noonu ñaari xalé yi ki mi ngi bayiko école de lutte Papa kan, kii bàyyi ko écurie Paquetas mom mo bayiko école de lutte Papa kan, 500 birik mo bayiko ko ñom ñaar ñi ngi doxé latéral li la la yow bi dawna jël ko luy xew plaqué nako mu rasu waaw waaw hey ci xalé yi waaw waaw 500 birig daw na jël ko di génn Paquetas lal ko plaqué mu daw genn ci. ndaysaan ba léegi jeexagul ñoom ñaar ñi ngi léewtoo benn benn paquetage ak 500 briques te yi ñoo waane de xoola paquetage nu muy doxee waaye 500 briques ya ngi ne tekk rek di ko yórnu dóor na luy xew dor na luy xew dóor na waaw waaw dóor na ko dor na ko dor dóoraan na ko waaw waaw paquetage ak 500 briques ñoom ñaar xeex nañ ñoom ñaar de waaw waaw ñaari xale yi paquetage ak 500 briques ñu noonu ñoom ñaar ci digg géew bi xale yi léegi seen combat day nangoon neex ndax dañuy xeex dañuy bëre te des fois nga ngi ci xale yoo xam ne tële wuñ bëre dañuy tenter action bii bu baaxul ñu dem tenter waat bële te loolu mooy bëre loolu mooy satisfaire amateur bi ñëw di seetaan loolu mooy satisfaire supporter bi nga xam ne dafa dagg biyeem ñëw di seetaan ndax bëre moom kenn xamul fu muy jeexee. waye soo loolu laalee lii baaxul rek sa xel war na la joxat leneen lo xam war nga ko mën a tantewaat paquetage ak yaam moy 500 briques noonu la ñuy def ñom ñaar fak nako mu bañ hey paquetage ak 500 briques ñom ñaar ñu ci digg géew bi arbitre bi leen di déglu rek waye ñu ngi bëre nag paquetage ak 500 briques ñom ñaar. ñu ngi ci biir géew bi hey Paquetas ak 500 Birame ñoom ñaar ay xale lañ ñu ngi noonu jàpp na Paquetas am na loxo ndeyjoor bi ci ngembu 500 Birame am na loxo gauche ci ngembu Paquetas moom it waaye Paquetas am na lu mu bëgg a waaye action kenn du ko forcer bugguma kuy forcer action boo ko forcer rek lu la naqari mën na cee jógee. action balaa muy neex day ñor Paquetas ak 500 birik Paquetas a ngi rokos bi loolu na caxabal boobu daa sori lii la la yow xale baa ngay bëre lii la la ñoom ñaar guddi na ko ba ci kaw dóor ko ci suuf laa ilaaha illallaah ay Paquetas waay boobaa guddi na ko ba ci baa ngi noonu école de lutte Papa Kane la bàyyi ko ay ndara la fa ne Marley fa la ne Papa Kane junior bi ngi fa Papa Thiam numéro 2 ngi fa Gabal fa la ne waaye xale baa ngi nii Paquetas oh Paquetas daan na 500 biir jël bu rëy waay. waaw maa ngi lay fay Mame Fall. ci loo ngi nii rek ngi ci jàmm santaat yàlla bu baax a baax. nga ñew sa deuxième sortie tay mais nga ñewé ak confiance ñew tay xex beure lu waral lool luñ la jangal la sa ay course wala lo xam da nga warona appliquer mu jeex. xam nga tay ji waaw lo xam ne na nga appliquer mais suñuy course tamit dañuy tek lu met ku ci melni ni Boy cham Bas Grand Iba Leuz Lamb dañuy tek lu met ñu nekk tamit équipe bo xam bép bép bépp bép loy wër rek amna fa. chaque jour dañuy contact chaque jour chaque jour chaque jour dañuy contact comme bu ñëwee fii wane fu laak fayda rek moo ñu war barke alxuraan kenn musuma toog bu ñu ma joxee combat ba nii ñëpp naanu kii moo la ëpp kii moo li musuma gëm ni musuma gëm ni sa waaye mën na ma mën na ma jaar fenn nañ ñuy xeeb rek nañ ñuy xeeb mais xam na doole ji ëpp na nii bëre bi